salaamaaleykum bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina moolana muhammadin alamin waala alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawm ddin bokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci bis tedd bi di ñaan sunu boroom nangul nu mboolem suñuy jëf yu baax te jéggal nu mboolem suñu rëcc di ko ñaan mu bàyyil nu fi sunu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha du yàgg lool lool lool te wéral ko te kattanal ko ba mu yeggale liggéey bi fu kawe njort te lépp yàlla nañ ko ànd moom ci mu gën a rafete gannaaw loolu dañuy dellu siwaat ci tomb boo xam ne waxtaane nañ ko fii ay yooni yoon waaye jamono dafa laaj ñu dellu siwaat ci ndax am gi mu am solo loolu mooy war may dëkk bi dëkk bi ñu nekk muy Tuuba war maam dañ ko war di fàttaliku saa su nekk di ci soññante di ci gën a wagar xam nañu ne Touba dëkk bu am worma la nga xam dañ koy niroleeg Makka ak Madina ak Beytul Maqdis ñoo niroo ci selluk barab ci cosaan niroo ci leer niroo ci barke niroo ci pas-pas bu ñu leen sose moo tax ñu am war ma ju kawe sëñ maa ngi wax wajal bihi daariya kal madina barakatan wal kaabatal masuna muy dëkk boo xam ne war ma ji dafa dafa amoon naka jëkk bi sëriñ bi ñëwee dolli ko ak sell dolli ko leer dolli ko barke dolli ko ay aw yiw ak i ba mu yegg foo xam ne yàlla rek moo xam na mu toll ci màggaay loolu tax na kilifa yi am ay taxawaay yu am solo naka jekk ci sàmm war may dëkk bi waaye yi ci gën a ràññiku mooy ci jamonoy Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu taxawaay bi mu ci taxaw ak farset gi mu ci def ak euh, matuwaay yim ci jël loola tax na ñëpp xam ni ñu war a nekk ci dëkk bi euh, xamit la ñu war a bàyyi xel kilifa yi ñëwaat ginnaaw ñëpp ku ci nekk bu ngeen ñëw da ko gën a dëgëral gën koo feddali ba ci kilifa gu mag gi fi nekk yàlla na ko fi yàggal te wéral ko gis nañu taxawaay bii mu ci mujj jël ci fan yii rek lépp ngir bëgg a ñoŋal barab bi ak gën a sàmmoor maam moo tax moo tax ñu war cee gën a dellusiwaat gën cee soññantewaat dëkk bi nag dafa bari ñu fi nekk ñoo xam ne xamuñu li leen sunu boroom defal baa buñ baa buñ ko xamee sant ñu ko dañ ko war a sante euh, xamuñu li ñu am ñu bari ñu ci bari mu bari ñu fi nekk ñoo xam ne ay jigéen lañ ak i ndaw yoo xam ne la war ci sàmmonteeg war ma ji defuñu ko bari na ci ay jigéen ak i ndaw yoo xam ne ñu ngi yor ay melokaan yoo xam ne wu ak ku ne ci dëkk bi di ko yor ci ay colin ci ay doxin ci ay waxin ci ay dundin ñu seetlu ne ñu bare bari ñu ngi tàmbale am ñu fi indi ay aada yu yees yoo xam ci dëkkuwaayu tubaab ya lañ ko xamoon ak ñi nga xam ne ñoo leen di roy loolu mi ngi gën a fese ci xeeti xew-xew yi xew yi takk soxna ak jël ko fi mu ne xewal nañ ci ay aada yoo xam ne xamee ko woon ci cosaan di ci yàq alal ju baree baree bari di ci def am pom mu jéggi dayoo ay millions yi millions ñu koy yàq ci wenn xew di fa dajale ay ay ndaw ki jigéen di di caaxaan ak a fo loolu di ci roy ñoo xam ne wax dëgg bokku ñoo waa dëkk bi te dëkk bi bokkut ak dëkk yi ñoo ña nekk ñu gis itam ñoo xam ne dañoo ne ci dëkk bi te mel ni ñu fi ne feneen nga xam lu xew feneen rek ñu bëgg a xew ak moom di def yoo xam ne méngoo wut ak béréb bi yooyu yëpp na ginnaaw kilifa yi ñoom taxaw nañ ci taxawaay yañ ca war a taxaw jël ca matuwaay yañ ca war a jël dafa mel ni yeneen kilifa yi nga xam ñooy kilifa yi njaboot yi ñu jaboote ñu ne ci biir kër yi te ñoo ñooy génn ci mbedd mi di def di mel nu ñu war a mel mbaa ñuy def lu ñu war a def ñooñu kon wax dëgg yàlla war nañoo gën a bàyyiwaat xel ci seeni warteef ci seen njaboot bari na fi ñu fi nekk ñoo xam ne dañu leen jàngalut ñu bari jàng ñu ñi ci jàngalit ñu ci bari yaruñu leen xam ngeen ne ku jàngul yaruwul dee su ko mën a wutaleeg bàyyi ma lu bari bakkanam rek lay xam ak ak lu lu lu lu ko neex du xam lu jaadu du xam lu lu lu war bari dafa kon ñu fi nekk di ay ndaw ñoo xam ne nekkuñu fenn di jàng nekkuñu itam di liggéey mbaa bu ñu yëngutu itam la ñuy yëngutu yëlawut ak ndaw di ko yëngoo war nañu mën a liggéey war nañoo yëngu yeneen yëngu yu gën ëpp solo yu gën a ko seeni at ci la nga xam ne moom lañu gis ñu di ko def kon loolu mën nañ jàpp ne ñàkk ñàkk jàngal ndaw ñu baree bari ak ñàkk leen yar ak kilifa yu bari ñàkk taxaw seeni taxawaay kilifa njaboot yi ñu si bari ñàkk taxaw seeni taxawaay ci ci njaboot loolu jur na li nga xam ne moom la ñuy gis tey jii muy xew te watoon a xew kon loolu nag laaj ñu gën a defaraat taxawaay yi gën a fàttalikuwaat bu baax xam ne dëkk bii dafa am boroom am lu ko sance woon lam ko sance ñor ko ba mu bind ab téere xasida na mu bëgg dëkk bi mel mu bind ko ca ñaan ko boroomam na mu bëgg ñi fi nekk war koo melit mu bind ko ñaan ko boroomam nga xam ku fi war ngaa jéem a xam la sëriñ bi bind ci téere boobe di matul fawsey ni jéem a xam melokaan yëm bëgg ko fi nekkee nga jéem nga nekkee ko fi bëgg xamit lam bëggoon dëkk bi mel ko ngay loo ca man wet goo ca mën a taxawee nga nga nga nga taxawee ko ca te it fàggul nañu fi loo xam ne wax dëgg euh, fii rek lañ gis mu am ci waaye amul feneen dëkk boo xam ne yow boo fa ñëwee sa dëkkuwaay dañ la koy may da la koy may fii képp ku fi am kër rek kër ga dañ la koo may dañ laa may pàkk ba teguñ la ci dara yow yaay dem ba yàgg bu ko keneen soxlaa ci yow nga di ko ko jaay maa nga di ci jëfandiku yeneen jëfandiku waaye na nga ci moom may la dëkk boo xam ne ku fa ñëw ñu may la nga dëkk ku ñëw itam ñu may la ngay ngay jëfandikoo ndox nu mu la soobe ak defal la yeneen yombal yoo xam ne lépp ci barkeb sëriñ bi la ak pàgguteefam ah, nga am fii xel mu dal am yaakaar am dund gu tey goo xam ne buñ ko nattee ci say coono natt ko ci say farlu duñ méngoo loolu ku ca nekk war ngaa xam sa bopp te jéem a sant te jéem a delloo njukkal ka nga xam ne moo defa loolu te mooy sëriñ bi kon nag laaj nañu gën a delloo si taxawaay yi te xam na ñi nga xam ne sëriñ bi jox na leen tey ndigal dénk leen ñu sàmm war may dëkk bi ay lañ ni ñun wa ñu war a mel ni ñoom ci pas kon kenn ku nekk yaa war a doon sa sàmm bopp boo xam ne yaay sàmm sa bopp ci dëkk bi balaa kenn sàmm yaa war a jaaji sa bopp balaa kenn war a jaaji sa njaboot it yaa leen war a taxaw balaa kenn ñëw di leen soññ wala ñu leen di jaaji kon ñun ñëpp war nañoo delloosiwaat taxawaay yi bàyyiwaat xel ci njaboot yi jàngal leen te yar leen jàng dafa mënta ñàkk ci doomu aadama ndax doomu aadama du du mala xel la ko yàlla jox xel nag la koy wa la koy niital di ko jox leer ba mu mën a xam loola mooy xam-xam xam-xam mooy leeral xol dañoo wax xam-xam ni mel cim xel dafa mel ni leer ak leer mel ci bët bëtub kese bu nekkul fu leer bu amutul leer goo xam leer nekk nekk ci barab boo xam leer amu fa bët boobee du gis waaye bu fekkee dugg na fu leer nag leer ga dugg ci biir bët ba leer bët bi bi di gis jëmm yi di gis yi nga xam ne moom la war a gis noonu tam la xel mel la xel mel kon xel xam-xam moo koy leeral ba ba mën a xàmmee dëgg ak lu moom xàmmee neen ak dëgg xàmmee it lu am njariñ ak lu amul njariñ moo tax ñu wax ne bil ilmi tahya qulubun qattu ma arafat min qablu mal farqu bayna alxaqi wal mayni wal ilmu lin nafsi nuurun tastadillu bihi ala alxaqaiqi misla nuuri lil ayni ne ci xam-xam la ay xol di dunde xol yoo xam bu njëkk xàmmeewu ñoon luy dëgg safaan ba waaye ba ci xam-xam duggee la xol ya daal di xàmmee dëgg ak safaanam xàmmee njariñ ak luy lor mu ne kon ci xam-xam it ni mel xam-xam ci la mooy leeral xel ba boroom xel ma mën a xam dëgg ni nga xamee ne leer leer gi jóge ci biti mooy dugg ci bët di ko leeral ba bët ba di gis jëmm yi muy gis kon euh, nit ku ñu jàngalut daanaka moom mala duñu duñu sore kon jàngal ndaw ñi loolu dañ cee war a gën a bàyyi xel te naka jekk sëriñ bi dafa fonk xam-xam ni ko lislaam fonke أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمدا رسول الله جهل السلام gi lislaam ponk xam-xam moo tax ndigal li njëkk a bàyyi ko ci suñu boroom dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aay bi njëkk a wàcc ci alquran jàngalay digle iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaan min alaq iqra wa rabbuka akram allazi allama bil qalam allama al insaana maa lam ya'lam sëriñ bi it wax nañu ne lii wax nañu ne li lii jëkk a war cib taalibe mooy jàng awalu waajibin muridi taxsilu zaadihi min altawxidi wa baadahu taxsilu maa yusaxixu bihi furud ayni fi ma sarraxu tekke nag ne wa baadahu yasluku in raamal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul loolu moo tax bi nga xamee ne am na ndigal ci boroomam ci yeesal diine ji ak xet li jaam ñi ndigal lañ ko jox benn bi mooy jàngalal taalibe yi bi gis mooy yar leen ci yitte mu kon ñaar tànk yooyu la doon doxe mooy jàngal nit ñi ak yar leen ak defar leen loolu moo taxoon it muy sanc ay barab di fa wéet ak taalibe yi di leen jàngal di leen yar di leen defar bu noppee ci ñoom mu sàkk ci ñoom ay jëwriñ ñu sancaat yeneen barab ñu jàngale ak yar noonu la def ba defar mbooloo moo xam ne buñ leen dee xool dañuy fàttali saxaaba ya ridwanullahi taala alayhim kon loolu mooy cosaan li sëriñ biit fi nekk di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu te wéral ko bu ñu ñëwee xam ngeen ne itam ji gën ji mu jiital ci yitte yi mooy dundalaat xam-xam ak yàggale ci mébét sëriñ bi ak i naalam taxaw ci taxaay boo xam ne ñëpp ràññee nañ ko loolu war a doon ab joxañ ak soññ ci taalibe yëpp ñu gën a bàyyiwaat xel ci jàng ak sàkku xam-xam jàngal ndaw ñi jàng miit na ànd akub yar ndax xam njàng mu ànd akub yar coono ak i lor rek lay jural boroom alaykum bi kasatil aadaabi fa innaha jaalibatu sawaabi fa kasatul ilmi bi gayri adabi jaalibatun ila asa wa taabi war a gis nañ ñi nga xam ne dañ jàngal te yaruñu leen ah, gis ngeen ni ñuy lore lor yi juddoo ci ñoom ni mën a baree yàq yi ñuy def ak eh, safaan yeeg ye baree bari nga xam ne njàng mu antukub yar moo koy waral kon njàng mi balaa am njariñ day ànd akub day ànd akub yar ndax jàng dana tax nit a xam waaye nag xam taxut a jëfe ndax nit ki bu xamee it am na yu koy gàllankoor ay bakkan ay bànneex ak yu baree bari seetaane ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ koo gàllankoor ba li mu xam du ko jëf waaye nag yara koy dimbale ba notal ko bakkanam euh, notal ko bànnee xam dàqal ko seytaane euh, teg ko ci yoon woo xam ne la mu xam dana ko mën a jëfe ku ñu yar te jàngaluñ ko sax na mu war a jàngee dana yar ba day mel luy xaw a wecc am jàng ndax la ma xam loolu lañ koy jëfloo ba suñ borom may ko basira boo xam ne bu jëfee rek day mel ne borom xam-xam moo tax sëriñ bi di wax ne wa huwa allazi jaala xusnal adabi yuxfi jahalatan wa qubha nasabi moo tax mag ñu bari daarañ joxe seenu njaboot ci barab bi jàngukaay ak di wax ne nañ leen jàngal te yar bu amee luy des nay nay nay njàng ma waaye yar bi moom na mat ndax yar mën naa mottali am am njàng waaye njàngum kese mënta wuutu mënta wutu yar kon yar boobu itam mat naa bàyyiwaat xel bu baax a baax jàngal nit ñi diine ji jàngal leen li ñu woo xam ci àdduna ngir seen dunduk àdduna mën a yéwén waaye nag yar leen def ci ñoom ragal yàlla def ci ñoom sàmm def ci ñoom ak fegu euh, def ci ñoom bëgg lu baax def ci ñoom pas-pas euh, ba ñu nekk ñoo xam ñuy jariñ lay doon lañuy doon te duñu doon ñuy ñi ñuy yare ñi ñuy lore kon loolu moom lu mat a bàyyiwaat xel la kon jàpp nañ ne jafe-jafe yi ñuy gis di ci ëpp ñu ngi koy delloo ci ñàkk jàng ak ñàkk yar ak ñàkk liggéey nit bu jàngee buñ ko jàngalee yar ko yi dañ ko war a liggéeyloo dañ ko war a fexe ba mu nekk di yëngatu ci luy lu koy jariñ di yëngu ci lu jariñ eh, xeet wi ndax waykat mi ngi koy wax ne inna shababa wal faraaga wal jida mufsidatun lil mar'i ayya mafsada nee ndaw lu amuk jot nga xam ne euh, jàngul liggéeyut nekku ci dara ba noppi yor aslëf nee na loola yàq la goo xam ne kenn xamul fu mu fu mu fu muy waaye buñ ne ndaw lu am ak jot te yor dara da yàq yàq mën naa jur ak yàq loolu nag bu dee ndaw loo xam dafa dafa dafa amug jot te te dara nag moom loola gën a yees loolaa gën a kon faaw ndaw ñi jàngal leen faaw ñer leen waaye faaw ñu fexe ba euh, liggéey loo leen jàpp ndalal leen ñoom ay barab liggéeykat jàngal leen ay métier ak i yëngutukaay tàggat leen ba ñu mën a jëf jëf yoo xam ne liñ yittewoo ci seen seen jëmm dañ ko mën a amal seen bopp la leen war ci seenu seen seeni jaboot war leen ci diine ji war leen ci taalibe gi war leen ci réew mi dañ ko mën a taxawe ba du ñu acc seen seen yitte ci ci keneen ba di yàq ka def yu kenn xamut kon yooyu daal bokk na ci li gën a mot a bàyyi xel ci loo xam ne ñëpp ñi nga xam ñoo jaboote njaboot yi ci gi ci yi war nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax am na ci loo xam ne nag mbay ci sa woyo tànk ndax ñi ci mbedd mi ñëpp ci biir kër lañ joge bu fekkee ne ñi ci kër ya nag la war ci njaboot defuñu ko buñ génnee ci mbedd mi nag bu leen fa bëggee yar itam du yomb kon yëf yaa ngi tàmbalee ci biir kër ga sunu boroom mi ngi ñuy wax ne eh, mi ngi ñuy wax xamal warteef yi war nit ci njabootam يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة yéen ñi gëm yàlla musal leen seen bopp ci sawara te musal ci seenug njaboot musal sa bopp ci sawara ak musal ci sa njaboot mooy nga tege ci yoon mooy nga xam sa boroom wéetal ko ragal ko tënku ci ay ndigalam bàyyi ay tereem sàmm war may jaami yàlla yépp ak seeni àq tege ci yoon loola kon nit ki def ko moom ci jëmmam te te yar ca njabootam loolu farata la kon taxawu sa njaboot jàngal leen yar leen day yitte day farata joo xam ne borom kër bu nekk ku jabooti ku nekk loola la jamono ji nag dafa mel ni ñu baree bari dañ ko talatut ba buñ ko talee it defuñ ci ja nga xam ne moo ci war ba lor yi ci juddoo yi gis nañ ko ñëpp kon ñu ngi delloowaat ñu ngi soññaat suñu bopp di soññaat suñu bokki taalibe yëpp ñu gën a bàyyi xel ci njaboot yi jàngal leen jàngal njaboot yi diine jàngal leen it xam-xam yi ñu yittewoo ngir yéwénal seen àdduna te yar leen yar na nit ki nga xamal ko lim mu war di def di ko ca tàggat mu di ko def nga xam ne fa mu tàmbalee xàmmee rek nga koy tàmbalee yar di ko tàmbalee xamal cax fa xelam toll aki atam nga di ko xamal la ko ca war ca jooju jamono mu di ko màggaale mën naa jiitu loolu sax ndax ni ki xamagut sax da koy tàmbalee tam da koy tàmbalee yar di ko wutal ay aada xamal ko waxtu yi muy war a jëfandiku yi muy war a lekk wala yi muy war a naan ak yi ko te def ak yi muy nelaw ak yi muy yeewu yi muy dem coon ak yam ko dul def mu bu demee ba nga xam boo waxee mu xam nag fu mu toll fu ne nga xamal ko la ko fa war te defloo ko ko ba mu tàmm ko loolu bu ko buñ ko defee ci biir kër yi ba nit ki mën a génn nag dem ca fa ñuy jàngee ka yare ñu wéyal loola ba bu jógee ci jàngukaay ba yarukaay ba itam ah, ña ko yilifaat ca ca ca ca kaw ñoom it di wéyal loola ci digli lu baax ak tere lu bon ak di jël matuwaay yawar ci ku def lu dul noona nga xam taxawaay yi daal ci yar su boobaa mën nañu jàpp ne euh, xeet wi mën naa ñoŋ mën naa mën naa baax bu ñu ko deful nag ah yi ñuy dund rek lay mën a lay mën a jur kon loolu moom lañ doon fàttali suñu bopp di ko fàttali bokki jullit yëpp di xam ne daal waa Tuubaa moom képp koo xam ne yaa ngi fi war ngaa xam sa bopp war ne yemoo ku ne ci beneen dëkk ndax am nga lu ku nekk ci beneen dëkk amul kon war nga doxe nu bokkut ak na ñeneen di doxe loolu nag kenn ku nekk ci ñun da ko war a def ci boppam te def ko ci ñamu yilif te bañ caa bañ dara nag ah, kilifa yi ñoom wàcc nañu kenn ku ci nekk ci sa jamono la mu laaj ci ay matuwaay ak pas-pas yaa ngi koy jël na mu ware waaye loolu dafa war a ànd ñi jaboote njaboot yi ñoom it ànd ak ñoom ci yitte jooju ak bëgg-bëgg boobu ak coono yooyu bu ko defee lépp mën a baax nu yàlla defal dégg ak topp te def jàmm ci suñu réew mi def ko ci mboolem réewi jullit yëpp ah, defal ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتبشير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا أيها الناس تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروه على نعمه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم به عليه في خلق عضو من أهضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله له في بدنه والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله وعظمته القلوب والخواطر وتكل في مبادئ إشراق أنواره الأهداق والنواظر نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن أما بعد فاعلموا أن عبادة الله هي هي سبب الفوز والنجاح وسبيل السعادة والفلاح qaala taala wa maa xalaqtu aljinna wal insa illa liyacbuduun wajtahiduu cibaadallah allaa yaraakum mawlaakum haythu nahaakum wa allaa yufqidakum haythu amarakum wa fi lxadiisi المهاجر من هاجر السوء والمجاهد من جاهد نفسه وهواه واغتنموا في شهركم هذا النزر القليل منه والباقي فإنه أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو فإنه كله فإنه كله وقت رحمات وعطيات واغتنموا هذا الخير العظيم واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله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 ذا المرعى وجعله هداء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير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 سمع الله ربنا ولك الله الله الله السلام عليكم السلام